internet yu enquête 221 nuyu nañ leen di leen jaajëfal ñu amaat mbégte ak contentement teewaat fi tey ngir waxtaan ak yéen ci performance su Sadio Mané mu nekk joueur bu nga xam ni nekk na ku ñu ràññee ci Premier League bi ba bokkoon na ci ñetti meilleurs joueurs yu ñu taboon ci saison bi ñu génn mu jël raayu meilleur buteur. ci noonu sax ci la jàllee ci Ligue des champions bi mu gis ni que ni wane na ci xarañteem ba ci noonu la ñu jëlee Ligue des bi ci tànk yooyu lay woyee ba ni muy ñëwee ci Coupe d'Afrique de nation mu jot cee wane xarañteem jot na cee dugal ay but yu takku ci noonu ci lañ jot a finaalu mais donte sax jëluñu final bi ci loolu ñu jàll ci super coupe bi Liverpool doon dajeek ak Chelsea di nekk équipe boo xam ni jot nañoo miinante ndax ñoom ñoo bokk championnat bi ñuy évoluer ci commencement match bi Chelsea moo jot a marqué ci premier mi bi deuxième mi bi à la 48e minute ci la Sadio Mané lakk caax yi ñuy woyal ba ci temps additionnel bi ci 95e minute Sadio Mané dugalaat deuxième but bi ñu yaakaar ni Liverpool jot naa gagné match bi 101e minute ci la Chelsea am penalty teg ko dugal ko ci noonu la ñu jàllee ci série penalty yi ba Liverpool moo jot a jël raw gàdd bi ci kaw Chelsea. doomu Bambali boobu moo permettre Liverpool ba ñu jël seen quatrième super coupe ci boobule super coupe dina permettre Sadio Mané palmarèsam gën a yokk laaj bi samp mooy ndax saajo maane trophée ci mu jot a am diggante daaw ak ren ndax dina ko permettre mu remporter lii di ballon door bi boobu lee laaj ñu ngi leen koy delloo yéen suñu mbokki internet yi ngeen tontuñu ci commentaire yi. maa leen di jaajëfal di leen jox dig daje di d'ici ay fan yu néew.